يسمن الله عند جولي إبليس إسناد ديته بيا ولي أيسمن الله عند جولي alhamdulilah alhamdulilah santaan nañu yàlla bu baax a baax a baax dimbali gëm ñu dimbali ba ñu teewaat si barke boppam yi waaye nag di ko sant bu baax a baax a baax moom mi nga xamante ni moom moo am kattan ak mën-mën ba tax nañu fekkewaat màggal gi nga xamante ne nag mooy màggal 2021 saa su ne comme ni ñu koy waxee rek booy leen di topp li nga xamante ni mooy actualité màggal gi suñu gaal 24 dinañ ci ànd ak yéen moo xam siyaar la moo xam yóbbu addiya la comme saa su nekk rek di jëm moo ni mu waxee nag tey nag ñu nekk fi nga xamante ne nag moom mooy Touba 28 di mbal ñëw ci li nga xamante ne nag mooy guy siyaar ñu war see seet si koo xamante ne nag euh, sët la ci waaye kër sëñ Massamba yi waaye sëñ Xaasimu Mbàkke euh, dañu ñuy topp rek ñu daal leen koy woon mu daal wax wax nag li nga xamante ne moom mooy histoire guy gi fan la guy gi jógee ak lan moo waral guy gi ñu koy jaajëfal bu baax a baax salaamaaleykum sëñ Xaasim maa ngi lay ziar bu baax waaleykum ñu ngi lay dolli ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay waaye itam di rafetlu bu baax a baax a baax doxin wi nga xamante ne yéen waa Sunugal TV yéen a ngi koy taxawee muy loo xamante ne lu am solo la ci jamonoy màggal gi ndax ku baax ki rek xam naa moo ko waral mhm. xencu ay jeex itam muy loo xamante ni itam mbokki taal bi yëpp dinañ ci mën a jëriñu mhm. dañuy wax ni képp koo xamante ni bëgg nga ko war nga kaa topp te topp li nga xamante ni mooy ay jeex itam euh, ñun nag ñu ngi ñuy dippee Sëriñ Xaasim Mbàkke suñu waajur bi nga xamante ni itam mooy saytu bi ñu koy wax Sëriñ Moustapha Sëriñ Modou Fatou Khary day sëtub Sëriñ Massamba xam naa ginnaaw boo xamante ne sant nañ leen bu baax baax a baax tey tàmbale foofu kàddu yi di nuyu bi yëpp rafetlu doxin wi di ñaan yàlla tamit defal ñu li nga xamante ne moom la ñuy sàkku ci màggal gi ñu am ko dañuy wàccandi kàddu gi foofu di xaar li nga xamante ne mooy question yi ci aju waaw Aïcha mi ngi noonu saa su nekk wéy saa su nekk wéy leen di topp li nga xamante ne moom mooy actualité ñu fas yéene waxtaane nag ne nag moom mooy guy gi kii nag di sëñ Xaasimu Mbàkke doon koo xamante ne euh, historien la maanaam ci wàllu guy gi ku jàng guy gi la te nag ñu war ci fas yéene waxtaan ak moom sëñ mu bëgg nañ nga wax ñu histoire guy gi fa la jógee ak dëgg-dëgg lan moo waral guy gi ba tax na nit ñi ñëw fii di ko siyaar si waaw li nga xamante ne mooy histoire gi moom guy le ci ñi nga xamante ne noonu la yeneen guy yi nekkee guy rek fii mu nekk nii am na yeneen guy yi fi nekkoon yoo xamante ni mat nañ ñett waaye yooyu yëpp tey nekkatuñ fi moom mii kese moo fi des li ko waral nag tey jii nit ñi di bawoo fépp euh, fu ne bu ñëwee ci màggal gi di fi jaar di fi ziar du dara lu dul Cheikh Khadim dafay jaaroon euh, jamono yi nga xamante ne mi ngi bëgg a sanc dëkk bii nga xamante ne jiitu na sancu dëkk bi euh, loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax sëñ bi bi mu jógee fi nga xamante ne mooy jàkka njatara ba ñëw fi nga xamante ne moom la ñuy wax daaru salaam euh, ginnaaw ba mu joxee maam Cheikh Anta taalibe yooyu noonu dafa jàll si fii nga xamante ne mooy biir Touba bi muy wër dëkk bi euh, dañoo wax ni leeru dëkk bi fii ci barab bii la ko gisee loolu sëñ Fallou Diop mi ma ko wax nekk ab bu mag a mag euh, bokk ci rawdu rayaaxin moom mu ngi ko jëlee ci sëñ cumbaleen bu sa ci cumbaleen bu sa itam Cheikhul Khadim nettali ko ko nga xamante ni sëñ bi dafa daan def ay nawaafil di fi def ay xalwaat waaye itam di fi taalif ay téeréem naka noonu itam euh, fii nga xamante ne mooy ci biir guy gi jàpp na fi ba taaye ci ci wetu guy gi waaye itam julli ci biir guy gi ay nawafil li ci ëpp nag ay nawafil la daan dool julli yoo xamante ne nekkul farata euh, naka noonu tamit njabootu sëñ bi itam am na ci ñoo xamante ne daan nañ ñëw ci barab bi ku ci mel ne soxna Fadja daana ñëw ci barab bi di fóotal soxna Amintaloo daana ñëw ci barab bi di fóotal suñ suñ Modou euh, ak ak ak ak suñ seen yére loolu ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu soxna Bintu Touré mi ñu ko nettali euh, doom siñ Abdou Karim Touré sëñ Abdou Karim Touré moo ko nettali mu nekk loo xamante ne lu sax a sax la waaye itam sëñ bi euh, ni ma ko waxee rek bokk na ci itam li nga xamante ne nettali nañ ko ci gur guy gi muy sëñ bi dafa mas a am boo xamante ni dafa doon taw taw bu méttee méttee waaye boobu itam amutoon fenn foo xamante ne mën na faa yóbbu téereem yooyu ngir mu bañ a tooy nga xamante ni keroog ci guy gi la ñëwoon loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy relation guy gi ak sëñ bi gis gi mu fi gis leer suba nekkoon fi dafa def ay xalwaat di jaamu yàlla suñu borom subhaanahu waaye itam di fi julli di di di di di fi taalif ay téere waaye itam euh, ginnaaw bu loolu jàllee lépp itam euh, mu nekkoon barab boo xamante ne tamit barab la boo xamante ni mënees naa wax ni fii lañ ko gisaa giseewaat ginnaaw boo xamante ni fàddu na Daaru Salaam fàddu gu yàgg yàgg ndax dañuy wax ni sëñ bi bi mu jógee Daaru Salaam dugg biir Tuubaa toog na lu yàgg kenn gisu ko bañ koy wër nga xamante ne ginnaaw bi buuba jaam yi nga xamante ne ab rëbbkat la woon mhm. nekkoon ab pël moo ko mujj gis fii bi ñuy wër sëñ bi ba wax ko ne ndax gisoo ku baax ki mu ne man de am na ku may gis koo xamante ne lu weex la sol di kaalaw te dafiy dugg ko génn ñu ne ko mooma nga xam ne moo leen demal wax xam ne fii lay faral di nekk euh, wet yi lay faral di nekk lu bari bañ dem ba gis sëñ bu mag bi kon loolu daal mooy li nga xamante ne mooy introduction bi mën a indi ci li aju ci guy gi incha allah rabbi mu ngi noonu ñu gis ni mag ñi bari dañ doon wax naan sëñ bi da doon ñëw fii li nga xamante ni moom mooy léeg-léeg mu buggee dalu daal di dalu ci ay mag yooyu ay wax yu antu la wala dafa doon ñëw di di di di toog pour ngir taalif li ci mën a wax daal mooy jaamu yàlla suñu boobu subhanahu wa taala la def ñaari bi itam euh, daanañ ñëw ni doomu aadama amee këram léeg-léeg di ko tabax ngir fegu ci tàngoor bi ak fegu ci sedd bi ak fe ci taw bi moom it dafa daan dugg ngir fegu ci taw bi noonu la demee euh, menn mag nag lañ xam moo xamante ni daana fi nekk moom ci lu wér muy loo xamante ni sëñ bu Mbàkke doom sëñ Abdu Borom Dër bi nettali na ko tamit ku de ku mat dool delluwaay tamit ci taarix yu mel nii mu ne sëñ bu mag bi da ki nga xamante ni mooy Cheikh Ibra Fall daana fi nekk ak moom loolu mooy loo xamante ni ginnaaw yoonu Daaru Salaam ginnaaw bi nga xam ne dem na bi nga xam ne sëñ bi fii la nekk loolu mooy li nga xamante ni mënees na ko cee wax waaye nag leneen li ci tege nag muy ay wàllu dallu nga xamante ni sëñ bi moom dafa amatoon ay waxtu yoo xamante ni daf koy neenal lépp day jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa barab bu gën a wéet nag moo fay nekk di gën a di gën a mën a wéetal borom subhaanahu wa taala euh, liñ ciy tegaat rek mooy ginnaaw boo xamante ne wax nañ leen taarix ba noppi nag dañoo bëgg ngeen xam li nga xamante ne mooy barab yu mel nii wàccuwaay bi mu am ci lislaam wàccuwaay bi mu am ci lislaam nag mooy alquran karim dafa wax ni waqaayim minaayatin fi samawati wal ardi yamruna alayha wa ma anha muradun ñaata ci ay aaya yoo xamante ni ñaata ci ay kiimaan yoo xamante ni sunu borom subhaanahu wa taala moo ko def ci kaw suuf si moo fi nekk ngeen koy romb nday joor ak càmmooy lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum ayunun laa yubsiruuna biha wa lahum aadanun laa yasmauuna biha ulaika la naam bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun yéen daal la ngeen am ay ay ay xel waaye du ngeen ci xalaat ngeen am ay nopp du ngeen ci dégg am ay bët waaye du ngeen gis lu lool kiimaanu sunu borom yi nga xamante ngeen koy romb mel ni ku ko gisul da ngeen ci war a jeexitalu dégg kiimaanu sunu borom bi te du ngeen dem di ci barkeelu da ngeen ci war a dem barkeelu kon bu fekkee ni nag euh, la nga ci waroon def defoo ko ci yow daanaka xottu nopp nga am waaye nag du ngeen comprendre xot xottu bët nga am waaye la nga ci waroon a def sa bët yooyu utiliser woo ko kon loolu bokk na ci li nga xamante ne sunu borom tëg ko nag kuy romb kéemaanam yi te doo jeexital ndax loolu tamit alxuraan di waxaat ni euh, sunu di wax naan tamit euh, li nga xamante ne mooy kéemaanam yi maanaam mooy symbole képp ku koy màggal mi ngi màggal li nga xamante ne mooy symbole yàlla yi sunu borom subhaanahu li nga xamante ne mooy symbole mi ci kaw suuf képp koy màggal yow loolu ak ragal ak ragal yàlla la goo xamante ni mi ngi ci sa xol loolu daf euh, euh, chaa'irallah dafa wax ne wa man yu'azzim chaa'irallah fa innaha min taqwal qulub képp kuy màggal euh, symbole suñu borom yi loolu ci ak yàlla la bokk naka noonu yonent bi sallallahu alayhi itam am na garab goo xamante ni dafa daan toog garab googu itam fa lañ jëfee li ñuy wax bay'atu ridwaan ñu koy wax bay'atu shajaratu ridwaan garab googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yëpp foofu lañ jaayante woon ak moom avant ñuy dugg fi nga xamante ne mooy mak euh, makkatal mukarrama waaye bi ñu demee ba ci xilaaf ak Seydina Omar dañoo seetlu nit ñi dañoo xër ci garab googu noonu di ko ziare Seydina Omar waxul dara mu wane ne kon loolu lu ñu sopp la ahlu tasawuf tamit mooy ñiy yëngu ci mbirum soufisme ñoom dañoo d'accord ci ne li nga xamante ne mooy euh, garab yu mel euh, nii di fi jaar loolu dafay lu am solo suñu tubaab itam waxoon na ni jëmmi warab yu mel nii ci téeram bi ñuy wax Euh, euh, rawdu euh, téere bi ñuy wax al wasaaya ar rabbaaniya wax na ca loo xamante ne dane imaamul yaafi'i moo ko nettali jëlee ko ci téere bi ñuy wax rawdu rayaaxin wax ni warab yu mel ni des kaa war a ziyaare ji ndax boo ko ziyaare jee bokk na ci màggal suñu borom subhaanahu wa su ko defee nag ni koy ziyaare nag mooy barab ba si jëmbam nga dem toog fa di xalaat yàlla suñu borom subhaanahu wa wala nga fay liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala wala nga fay naafila wala nga fay def loo xamante ne ay wirdu wala zikkar waaye nag du mooy ngay dem di xoos barab ba wala ngay eh, jël ca xas ya di ko dagg loolu àdduna jëpp bu ñu ko defoon tey ji garab gi kon du fi desati kon loolu mooy wane loolu logique kon loolu mooy tere yi ñuy tere ci garab gi eh, li ma jiitaloon sànq loolu mooy ni ñu ko war a doxalee ci wàllu ziar gi li ma jiital li ma njëkkoon a jiital nag mooy li nga xamante ne mooy ngëneel li ci aju eh, avant tout nag waxoon naa li nga ne mooy taarix bi moom laa doon leeral léegi li nga xamante ne moom lañ fi bind ci biir loola da loo xamante ni mbokk taalibe yu xër yi ñoo ko fii faral di def waaye barab la boo xam dañ kaa war a ziar Sëñ waa dafa wax ci téeram boobu ma tuddoon léegi wasaaya arrabaan yi <coughs> alxuraanu karim barkeelu ci mooy nga tijji kaamil bi di ko jàng jàkk barkeelu ci mooy nga dem ci jàkka ji ibbi ko di julli wala nga fay naafel wala yu mel noonu sëriñ barkeelu ci moom mooy lu mel ni dem mu digal la tere la ngay def lim lay digal bàyyi lim la tere wala nga jox ko loo xam ne dina ko bégal wala nga def loo xamante ni dafa jugee ci moom nga jariñoo ko barab yu mel nii tamit barkeelu ci mooy nga dem toog ca barab ba fàttaliku ku baax ka fa jaaroon wala lu baax loo xam ne kay nga koy wala nga fiy wéetal suñu borom subhanahu wa taala wala nga fiy zikkar wala yu mel noonu waaye nag dem di dagg garab ga yooyu santaane wuñ ko dañ koy bañ su fekkoon ni ñëpp moom lañ def waa Inde def noonu waa Chine def noonu waa Amérique def noonu kon nag loolu nañ ko watandiku garab gi nag moom moo fi des ci garab yi fi Sëriñ waa bàyyi woon ak ngi gis gi nekk ci buntu kër Sëriñ ak garab gi nga xamante ne moo nekk ci biir euh, bayti ñu koy wax daqaar gi ci bayti kon incha allahu rabbi xam naa la ci ëppoon importance euh, xam naa baaxee naa leen ko ci bëri yeneen yoo xamante ni dañ ciy amut ay sources yu wér moo tax duñ ko nangoo génne lépp loo xamante ni daal euh, ay sources yu ñu ci am ci ay marjan ay delluwaay yu wér bu soobee yàlla incha allahu rabbi saa suñu ko suñu borom baaxee dinañ la ko baaxee loolu lu wér la ndax euh, Cheikhul Khadim bi nga xamante ne jóge ci géej gi te bi muy doog ñëw ci euh, dëkk bi euh, am ñetti jinne yoo xamante ne jaayante nañu moom mu daal di dem ci géej gi am juróom-ñaari jinne yoo xamante ne jaayante nañu ak moom loolu muy ñaata muy fukk juróom-ñaari ñooñu mu àndal bi muy ñëw ci géej gi da cee am. kenn koo xamante ni ñett kon boog ñoo xamante ni ñoom la bi juróom-ñaari ñooñ jëbaloon ci moom ci géej gi nga xam ne Sëriñ Musaa Ka tudd na ko muy Kakayor ak Nabayor ak Kalnaatir da amoon ñett ñoo xamante ni bi muy ñëw dafa àndaale moom ñoom ñëw ci biir Tuubaa ñett ñooñu nag da ci am kenn koo xamante ni Nabayor lañ koy wax moom fii la ko daxaloon kon ñu xamee ko noonu euh, ñooñu bokk nañ ci ay taalibe ñu nekkoon ak moom fii mu daxaloon ko fii itam te da ci fukk yooyu itam Sëriñ Tuubaa da leen a defal li ñuy wax tabshir bil janna ñu bokk ci achatul mubashara yi ñi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa am na fukki nit ñoo xamante ne jag bëgg eh, eh, bëggale na leen ajana amaan na fukki jinneem yu mu bëggalee ajana na nga xamante ne noonu la ngeen sallallahu alayhi tamit defoon ci fukki jinne yoo xamante ne bëggale na leen amaat fukki nit ñoo xamante ne da leen bëggalee ajana dalee ko ci Abubakar ba ci Zubayr ibn al ak Talha eh, naka noonu tamit Seydina Jibril itam fekk na ko fi sëñ bu mag bi moom si jëm moom Seydina Jibril fekk na ko fi yooyu yëpp ay anwaar la bu waxee ah, ay mbir mbóot yu ko fi fekk loolu rek daanaka doy na ci sëkk kon xam naa yaakaar naa ñuy xaaraat leneen bu fekkee ne am na kàddu gu ci nekkaat ay ci sëñ bi mu doon loo xamante ni lu leer nañ la si mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñooy baaxoo di suivre li nga xamante ne moom mooy site bi di suñu gaal 24 bi nga wax ñu fan nga jàngee li nga xamante ne mooy histoire guy li nga xamante moom laa ciy wax lépp benn ma jëlee ko ci sama waajur wala ma jëlee ko ci historien yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi teñ yàgg a jonjoog mag ñi ku mel ne sëñ Fallou Diop moom ma wax nga xamante ni sëñ Cumbuleen Bousso lay jëlal li ci ëpp lu muy wax te sëñ Cumbuleen Bousso dafa fekkante ak sëñ Tuubaa am na lu muy wax sax léeg-léeg di wax ni sëñ Tuubaa nee na ma am na ci yoo xamante ne tamit euh, maa ngi ko jëlee ci sëñ Abibu borom dër bi sëñ Abib mi nga xamante ni doomu sëñ Abdoulahi borom dër bi la am na ci yoo xamante ni tamit maa ngi ko jëlee ci soxna Bintu Touré mi nga xamante ni euh, doomu sëñ Abdou Karim Touré la mu sëñ Tuubaa waxoon ni Jibril bu day ñëw ci man melokaanam lay indaale nga xam ne amu ci dara loo xamante ni dama kaa diggantu ci mbedd te lu ma lépp lu ma ciy nettali dama lay wax ka nettali ak kooku fan la ko jëlee ba mu àgg ci sanat bi àgg kon yaakaar naa loolu doy na ku ba koo xamante ni dafay def euh, euh, étude boo xamante ni dafa bëgg lépp teg ci ay sources kenn kuy def njàngum académie bëgg euh, loo xamante ni da da ciy def thèse mu nekk source yu dellu yu mat sëkk yoo xam ne da nga ciy delluwaay day nekk ay delluwaay yu wér keng kon yaakaar naa loolu loo war a mën a téye la acca mi ngi noonu saa nekk ñu leen doon jaajëfal ànd bi ngeen xamante ni moom nga doon ànd ñun waaye téléspectateurs yi fidèle téléspectateurs yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ah, bi lan ngay joxe li nga moom mooy sa kàddu gu mujj kàddu gu mujj gi rek mooy képp ku fi ñëw nga ziyaare barab bi nga xam ni barab bi barab bu mat a warmal am ci Pastef ndax sëñ Moussa Ka dafa waxoon sëriñ bi bépp barab boo xamante ne mës na kaa def ab jotaay képp ku ko xamoon da nga ko def ab ah, ndax yàlla sunu subhaanahu wa mooy xool lu ko neex mu jagleel ko mbir moo xamante ni loolu deful lu tax mu jagleel ko lool exemple bisu àjjuma mhm. moo gën ci bisi te deful lu tax yàlla sunu subhaanahu wa taala gënal ko ci bisi laytu xadar moo gën ci bisi te deful lu tax yàlla sunu subhaanahu wa taala laytu xadar moo gën ci te deful lu tax yàlla sunu subhaanahu wa taala gënal ko ci guddi yenn salaasina moo gën ci yenente yi te deful lu tax yàlla sunu subhaanahu wa taala mhm. ko ci nit ñi mhm. li nga xamante ne mooy jàkka yi moo gën marché yi te ñoom defaluñu lu tax yàlla subhaanahu wa taala leen ci marché yi li nga xamante ni tamit mooy euh, alxuraanu karim moo gën ci mboolem wax yàlla yi te yàlla am na yeneen wax yu mu waxoon zabur tawreet yeneen yeneen te alxuraan moo gën ci mboolem téere kon loolu fadlu taxsis la lu ko yàlla jagleel la naka doon tamit barab bi moo ne buntu kër gii rek lu tee ngeen ziar ko te barab bi moo ko gën ci seen seen dégg-dégg da dëgg-dëgg maanaam yàlla subhaanahu wa taala moo ko jagleel lu nekkul feneen kon taalibe bi ñëw na am pas-pas boobu xam ne ku baax moo fi jaaroon su ko defee itam ñetteelu euh, ñaareelu conseil bi mooy bu ñëwee mu mu ziare ko ni ñu ko war a ziare fii ak feneen fu mel ne armeel yi wala daare kaamil wala feneen feneen bu fa demee nga xam ne bu demee ci bibliothèque ba dafa war a yër téere jariñu ca jëfe liñ ci wax eh, yéemu yokk fam bàyyi tere yiñ ci yiñ ci tere yaa ngi dégg su fekkee ne dafa dem armeel yi mu waaru ndax yéen sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni bàyyi naa leen ñaari waarakat benn bi muy dee benn bi muy alxuraan mu jéem a melokaan melokaan mi nga xamante ne moom la yéen sallallahu alayhi wasallam bëgg fàttali ko alaxira jéem a dund dund sellal su fekkee dafa ñëw ci barab yu mel nii nga xam ne eh, sëñ bu mag moo fi jaaroon mu jéem a roy sëñ bu mag bi anam gi mu nekkee woon di fàttali ko ku baax yi anam gi mu nekkoon di jàng alxuraan xasida jàngal aw eh, ay sëñ bu mag bi ay xasida wala alxuraan wala leen leen yéene ko aw yiw yu mel noonu lañ ci bëgg ayca mu mel ni sëñ bi mi ngi noonu daanaka eh, lan lañ bëggoon xam li nga xamante ne moom lañ fiy bañal muy bañalu guy gi waaw jëmmi guy gi nag ni ma ko waxee rek ginnaaw boo xamante ne lu am lu mat a téela bu wér a wér di ko ji waaye itam mu nekk noo xamante ni tamit dafa am nu ñu koy ziare li ci mat a wattandiku rek mooy lépp loo xamante ni dañ ciy dugg dafa am noo ciy duggee li ci mat a wattandiku bokk na ci boo ñëwee ci barab bi nga fi rayo wala nga nga koy ngay ngay ngay xas dara dem di ko sangoo wala ngay jër dara di ko takk wala ngay nekk di xalangu ci suuf si wala lu mel ne ngay jël sa tur di ko bind ndax yooyu yëpp daanaka nekkul loo xamante ni dañ kaa saxal ci mbindum sëñ bi nekkul loo xamante ni tam mag ñi àndoon Sëñ noonu te ñun ñoo ñooñu ñooy suñu royukaay ni nga xamante ne suñu Tuubaa dafa waxoon ni saxaaba yi mooy ñooy royukaay mag ñi ndax noonu tamit ñun saxaaba yi ak mag ñi yëpp suñu royukaay lañ kon nañu doxee doxin wi nga xamante ne mooy wa gën xër baax na itam xër baax na waaye nag ëppal baaxul loolu nañ ko bàyyi xel bu ko defee ñuy eh, eh, jéem a eh, jaarale mbir mi ci yoon bu ñëwee ki nga xamante ne day ziar na yem ci lu mel ne tafakkur tazakkur nawafil li nga xamante ne mooy xalwaat yu mel noonu na ci yem lu mel ne xalaat lu baax xalaat mbirum ki fi jaaroon zikkar naafila jàng alxuraan yéene ko yool wi wala yu mel noonu su ko defee xam naa dañuy wàccee kàddu gi foofu rek di jéggal lu baax a baax a baax a baax ac macha allah ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax suñ Xaasimu Mbàkke moom mi nga xamante ne tubarkàlla moom mooy histoire guy gi téléspectateurs yi saa su nekk comme ni ñu koy daal waxee rek wéy leen di continuer di yabone la page bi nga ak di topp suñu actualité ñu leen di jaajëfal beneen yoon incha ak ci beneen numéro ak keneen incha allah jaa jëf